jërë ngeen jëf mbokk Leewtoo di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ñaan ci yéen te ñu dajal dalal fi benn champion champion bu mag dëkk ci Rebeuss mu ngi tudd Double Moteur ñu jox ko kàddu yi mu nuyoo ak euh, waa ñi seetaan Leewtoo Double Moteur yee maa lay fay frère ginnaaw bi ñu si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ maam Thierno Mbacke imam di ko ñaanam yàgg fi loolu te wér xam di jaale waa Daaru Muxti yëpp xalifa Daaru Muxti bu génn àdduna di ñaanam mboolem kilifa diine yi fi des suñu borom bàyyi leen fi ah ak kilifa diine yi leen di jaale waa àdduna waa Sénégal di leen ñaanal yàlla suuf woyof seen bu baax di leen siyaar di leen dalal yaa ngi doog a jógee Maroc lan nga wuti woon Maroc d'abord. waaw foofu liggéey rek liggéey yokk ci li ñu ci li ñu doon def daal waaw ndax xam nga expérience moom yemul Sénégal rek te am na niveau booy toll dam beneen instant tamit day laaj xam nga nga génn li nga amul woon nga uti jigoo xam nga li nga découvrir li nga xamul woon daal waaw. lan nga amul Sénégal te fekk ko Maroc. non xam nga Sénégal moom boo nee xam nga Sénégal moom ak Maroc moom du benn quoi am na différence. mooy li ma sàng rek xam nga génn moom dafa bokk ci sportif parce que tey jii nii dina la dina la dina la permettre lu nga gën a découvrir lu bëree bëree bëri même bu fekk du même bu dul ci sport bi sax dina am lu mu lay yokk inspiration bu mu lay yokk ci àdduna lu bëree bëri loolu mooy njëriñu génn mais Sénégal moom am na lépp wax dëgg yàlla fii bu dee saal baax am na fi am na lépp xam nga mais xëy na peut-être fële li mu ko tanee mooy récupération bi nga am foofu noonu xam nga doo ko am fii nii ak hygiène de vie bi te yooyu noonu tam dafa am importance ci sportif waaw loolu moo gën a tax tamit ñu génn dem uti ko. ñaata temps nga fa def. non un mois rek lañ fa def nag ah, waaw. lu indi. xam nga rek li ñu moom mooy essence yi li téye Sénégal yëpp téye adduna bi sax laa wax muy mbas mi waaw après loolu xam nga mbas mi moo gën a tax sax ñu daw ñëw parce que boo xoolee ñu fa nekkee saal yi ñu doon entraîné sax après gars yi ñu commencé woon tëj quoi commencé woon tëj ndax feebar genre affaire yooyu xam nga te comme tamit ñu ne dañuy waaj combat ba dem foofu noonu pour liggéey. buñ ko tëjee tam buñ tëjee saar yi foofu noonu ñu toog foofu amul benn njëriñ mais foofu ñu ñëw fii nii xam nga maintien continuer suñu entraînement fii nii ba keroog gars yi waat yoon yi wala dara ñu xool ñu delluwaatee feneen wala affaire yooyu waaw loolu moo gën a tax ñu ñëw daal. Euh, làmb ba mu tëjee daaw ba ren wala biñ ko arrêté ba léegi euh, kenn bëreetul euh, durant temps boobu yëpp ngeen toog bëree woo ko nan nga ko dundee. waa dinaa ni ko ñëpp di dundee rek métti na moom parce que tamit ku xam na ni mbër moom bëre mooy métier xam nga. te entraîné bëri woo dafa métti mais dañuy sant yàlla rek waaw parce que tamit xam nga comme du làmb kese mën naa ne àdduna bi yëpp la xam nga activité yëpp a taxaw kon tamit dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla feebar bu jóge fii ba gars yi mën a delluwaat seen activité loolu kese la parce que tamit lii mën naa ne benn balaa la rek bu wàcc ci àdduna waaw loo xam ne mbiru suñu borom la daal xam nga kon loolu mënuñu lu dara di ko sante yàlla rek di ñaan yàlla aussi tamit xam nga mu jóge fii ba ñëpp delluwaat seen ay liggéey parce que activité yëpp a taxaw du làmb kese boo xoolee sport yi yëpp a taxaw xam nga liggéeyu gars yi mooy loolu noonu kon tam mënuñu lu dul xam nga dundee ko comme ni mu ñëwee rek waaw. combat bi ba ngeen ko jëlee yàgg na boobu ba léegi yaa ngi entraîné yaa ngi dépensé xaalis avance bu ñu joxoon dafa jeexagul dafa bëri ba jeexagul wala instant yaa ngi xoox. non làmb comme yàgg na bi ñu bi ñu combat bi taxaw léegi yàgg na kay nii waroon na fekk ñu bëree bu yàgg waaw xam nga fii moom xam nga mbër moom mooy lool xam nga mbër moom avance yu mbër moom du dara ci comme sa préparation combat xam nga li ma la parce que daanaka gars yi li lay jox xam nga du dara ci sa préparation parce que li ñuy préparé moo ëpp loolu foofu parce que mbër moom yaakaarul ci avance kese pour préparer wu xam nga souvent tamit loolu dañuy profité di gërëm ñi nga xamante ne tam benn sens ñoo nekk si suñu ginnaaw di ñu dooleel ku ci mel ni xam ay Pam Góor Samb ay laat xam nga laat dama koy sant bu baax laat bopp kooku mention spéciale kenn la ci man dama koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di sant tamit suñu papa Diop si xam nga di sant gars yi nga xam te ne ñoo si sonn ku si mel ne ay Ndiaye Ndera xam nga ay Modou Diagne xam nga ay Diop dollar gars yi nga xam te ne ñoom dañuy yëkkati xaaruñu combat quoi ñoom bu ñu nekkee bu ñu déggee prépa am na rek dañuy génne seen ay propre moyen di si di si def si ñun xam nga ñooñu ñoo ñooñu ñooñu ñooy suñu doole. parce que bu doon li ñuy fay ak li ñuy fay rek amaana li ñuy fay mënuñu si préparé wu mais gars yi topp suñu ginnaaw tam ñi nga xam ne ay bailleurs de fonds lañ dañ jàppale ñooñu rek ñoo siy jàpp waaw ñooñ tam dañ leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaw. liggéey ci victoire yow ba ngay avant ngay dem xamoon nañ ne yow yaay daane combat boobu noonu la yombee woon wala yaakaar amoo amoo xalaat boobu du xalaat boobu nga ci amoon par rapport ak ñuy wax loolu. waaw loolu lañ sant yàlla rek xam ñu lay ndaw lañ ñu lay ndaw lañ bu ñu duggee si làmb ak léegi yàggul yàlla mu ngi suturaal nag ñu ngi avancé dañuy ñaan yàlla di gën a avancé rek xam ñu ñun loolu kese la ñu war rek chaque la ñuy nekk mooy bu ñu amee combat ñu préparé comme ni war a pare dem ñaan li si des ñu bàyyi ko si loxol yàlla ñaan te yàlla mu ngi sutura ne fii kenn mënul kenn suñ ku yàlla rek moo fi nekk xam kon tamit dañuy sant yàlla ba mu ñuy baax a baax a baax di ñaan yàlla tam ku kuñ dajal tamit mu demee noonu rek ba keroog ñuy jël roi des bi loolu ñuy ñaan yàlla Feugeleu yomboon na ba dem nest loolu nga wax bopp non Feugeleu yombul parce que Feugeleu mbër bu mag fëgale yombul parce que mbër bu mag la te daan na fay espoir aussi xam nga jóge say victoire am solo kon loolu mënul nekk combat bu yomb xëy na peut-être benn sant ñoo toll ci làmb foo xamante ni suñu bët teguñu ko sax si adversaire yi nii parce que ñun dañoo di yor benn objectif objectif bi ñu yor mooy dañuy ñaan yàlla bokk si les ñi nga xamante ni ñoo ñooy téel làmb ji loolu la ñuy ñaan yàlla bokk si ñi fi mën kon tey jii bu fekkente ne nag yow da nga objectif boobu noonu nekkul ni mbër yi nii ñoom nekkul ni ñi ngay bëri nii ñoom ngay teg sa bët daal parce que ñun chaque ñu ngi teg suñu bët ci kaw loolu kese la amaana gars yi loolu ñu gis moo tax benn sant ñu xam ne ñu yombal ko loolu kese la mais du lu yomb daal. jógee ci Feugeuleu jëm ci Quench euh, différence boobu nan nga ko nan nga ko analyse. bi moom analyse wuñ ko dara lu dul combat comme yeneen combat rek. yee suñu adversaire la xam nga mbër la def na ay preuve am ñun tam ñu def suñu ay preuve ba làmb boole ñu war a bëree xam nga loolu kese la dañ koy préparé waaj ko comme ni ñu waajee yeneen combat yi xam nga. jëm ñaan yàlla mooy ñu ndam loolu kese la. xam nga ko Quench xam nga ko. Quench xam naa ko baax ci làmb laa ko xam comme ni may xamee yeneen bëri rek ci ci làmb laa ko xam bu dul woon ci làmb amaana mën naa ko bañ a xam xam nga mais ñu ngi koy waaj daal comme ni ñuy waajee yeneen combat yi daal. combat boobu da ngay ñëw pour xeex dóor ko daane ko wala da ñëw pour bëre. waaw combat bi combat la boo xamante nii lu mu laaj rek dinañ ko def si kattan suñu borom bu laajee xeex dinañ xeex bu laajee bëre dinañ bëre te combat moom xam naa ne dina dina am xeex dina am bëre incha allahu rabi. pour xeex. waaw combat la déggoo lim la combat bi dina am xeex dina am bëre parce que ñaari xale lañ dina war a jëflante parce que loolu la gars yi di xaar ci combat bi. Mhm. xoolee sa poids xool poids Quench yaakaaroon ne moo la ëpp tuuti. non amuñu différence de poids am différence de poids te ñun ñun ñun ñoo ko ko gën foofu boo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàng métier xam ñu ngi di jàng métier kon kooku moo ñu moo ñu gën a féet kooku boo xaymaa ay atam xayma sunaat lu ñu li ñu magee mën na dix ans. dafa tardé ci làmb. déggoo leen moo moo ñu mag fuuf ñoo ko gën a nekk xale téeméeri junni yoon tey jii nii amul benn dif amul lenn loo xamante ni moom mën nañu ko ëppale ci làmb te tey jii bu ñu taxee mu taxam amul dara lu ñu yóbbul kon kooku noonu tey jii nii mënuñu ëpp doole mënuñu ëpp dara xam nga maa ngi ko dégg nag muy wax di di ci di wax rek mais na xam ne nag bu mag ci bés bu mag lay dee na bàyyi wax ji xam nga te xam ne combat mu ngi wax rek nag mais man xam nga ku liggéey war moom wax waru la te ñu ne wax dëgg yàlla moom instant fi ñu toll ci làmb moom liggéey moo ñu war rek mais du ay wax yu bari wala dara. te dégg dafa mel da nga xeeb Quench. non du question rek xeeb de parce que te jii nii boo xoolee boo dégloo ay interview am amaana tey jii moom moo ñu respecté wul moom moo ñu joxul cër moom moo ñu xeeb yaa ngi dégg moo tax moo wax la ko si biir wax ne nag bu mag si bës bu mag lay dee. moom na bàyyi xel loolu noonu rek. waaw te xam ne tamit mu ngi mu ngi mu ngi bëre ku fonk combat bi lool. donc combat foo ko teg mystique wala. non mystique mooy lan ñun ñooy xale ndaw di liggéey am doole nga ne mystique. waaw dañ bàyyi yooyu ay mystique mooy loolu ñoom ñoo ko teg si ay mystique wala di wax ay waxu gàllaaj wala dara. wallahi azim ñoom ñoo ko teg ci ay wala ay gàllaaj mais ñun teguñu ko si mystique teguñu ko si dara ñun suñu gëm-gëm la ñuy demee ñun ay booy ndaw lañu. yaa ngi dégg ñun suñu ay gëm-gëm la ñuy demee liggéey li ñu war a liggéey nekk si lu ñu nekk dem suñu ay wéyjur ñaanal ñu wallahi azim du galaaj du dara parce que galaaj mën naa ni mooy cinquième position ci làmb xam nga làmb li ci ëpp solo mooy liggéeyam doole ak mën a bëri ak am fit loolu kese la li ci des parce que galaaj dañ la koy utali rek galaaj bu la neexee nga toog fii ñu dem utali la ko mais doole yaa ko utal sa fit ci yow lay nekk xam nga la te yooyu mooy le plus important ci ci ci làmb loolu moo ëpp solo ci làmb mais yeneen yi si des yëpp du dara ay détails yu ndaw la rek waaw parce que mystique mën naa toog fii ko am yaa ko wutal sa bopp jom ak fulla ak fayda si yow lay nekk kenn du la ko wutal yee noonu la demee nag. su ma la déggee da nga trop ci làmb ci alors que euh, ñu bëri yaakaar na ne mooy euh, mbër yi gën a ci la ci la bokk. Mm-hmm. waaw loolu dëgg la dëgg naa gars di ko wax mais ñun moom mystique amul benn mbër bu ñu ciy tiit ci àdduna mooy li ma la sànq rek gàllaaj moom tiituñu si benn mbër parce que chaque jour ñu ngi nekk si li ñu war a nekk xam nga di dem si ñu yaakaar kon jarul ñuy tiit dara ci gàllaaj te yàlla mu ngi suuraal boobu léegi moo tax man la gàllaaj ay cinquième position la ci làmb làmb li ci ëpp solo mooy doole ak bëre ak fulla ak fayda ak fit yooyu moo ëpp solo ci làmb mais mystique mën nañ la ko utale man naa toog fii ñu dem utale ma gàllaaj gàllaaj mën naa toog fii laa la wax samay mbokk jog dugg ci àll dem uti ko te du ma bouger centimètre xam nga li ma xam nga kon loolu mën nañ la ko utale gaa yi dañuy moom ay mbokkam dañuy jóg say mbokk jóg rek lu gàllaaj nga koy uti rek waaw loolu la fii ku yàlla dimbali moo fi nekk mais du gàllaaj dara doomu moo gën a naqare jàpp lu yàlla lu mu bind doomu gën a fonk moo tax jàpp nit yombul moo tax gars yi ñooy nekk fii di wax rek yaa ngi dégg moo tax gars yi moo tax man yooyu du ma ko bàyyi xel sax ay misik yi yooyu nag dama koy dégg si moom gars yi di ko wax dafa am gàllaaj dafa nangam dafa am misik nangam ak nangam mais mu ngi bëri ñu koy daan bëri na am defet bëri na am defet bëri na fi niil. ay combat bi moom moom ak Dieng Kéré dañoo niil. waaw dañoo mas si niil bëri na fii ñu daan ko waaw mais noonu la demee rek làmb ji da nga fay gis ku daanuwul amul ku daanuwul ñëpp a ngi daanu noonu la demee rek te pourtant ñëpp am gàllaaj ñëpp a uti gàllaaj moo tax yooyu existé wul quoi lépp solo mooy doole ak mën a bëree. ci terminé nañ eh, émission bi lan ngay tàggatoo. dañuy sant ñi nga xamante ne benn sant tamit xam nga ñooy sonn ci affaire yi parce que ñooñu mooy mooy li ma la ñoo ñooy suñu doole mooy sama waa koñ waa Rebeuss xam nga ak Dakar Plateau bi ñaa Cokeer Medina Fass Colobane bàyyiwuñu kenn xam nga di sant sama grand boo xam ne tamit laat laat boobu moo ngi koy bu baax xam nga di sant tamit waa Africa sis bi yëpp. ak fi mu nekk gars yi maa ngi sant gars yi parce que moom tamit day sonn si ñun xam nga sama voyage bi dañ na si ay coono yu métti yëkkati xaalis déglu ko xaalis bi wax tàll te ko si taawal bi te loolu yombul ñu koy sant baa di ko gërëm muy laat bopp xam nga di sant tamit sama grand Ndiaye Ndéla bu baax di sant tamit xam nga moo Diagne di ko sant di sant suñu papa Diop si mention spéciale dañ koy sant ay ñoom Babou Touré suñu président Saliou Diop ñoom ñëpp dañ leen di sant ñoom Abou Moïse xam nga ñoom dañ si sonn ministre yaa xam mbay xam nga dañ lay sonn ku ci mel bu baax a baax di ko gërëm gis nañ taxawaayam si ñun koy sant bu baax xam nga sant gars yi nekk si maire bi yëpp tamit ñoom bira gars yëpp di sant sama waa koñ seen waa Rebeuss di bu baax di gërëm booy ba léegi la ñuy sonn si ñun te lii dama bëgg nga jëlal moom si ñoom dañuy sonn si ñun bi ñuy booy ba léegi bi ñuy bëri mbapat ba léegi la topp si ñun di ñu ànd ak ñu di bàyyi seen liggéey yëpp dañuy topp te dërëm bu ñu leen di jox du un bu ñu leen di jox parce que amaguñu dara ñuy ànd ak ñun te yàlla rek tax xam nga des fois sax ñu jàdd yoon nekk si naka su dul noonu teewul xam nga ñoom dañuy ñëw ànd xam ni ay xale ñu leen di sant ay xam nga gars yi entraîneur yi daal waa équipe yëpp di ñaanal équipe Rebeuss nag xam nga mbëri fam combat yëpp su yan borom sutura leen may leen ndam ñi famgul ndam di leen bëggee tam bu baax waa Leewtoo di leen ñaanal yàlla tamit affaire yi ba nekk ay télé yu mag a mag parce que gis nañ seen taxawaay ci làmb te gis nañ seen njëriñ barke Serigne Saliou Mbacké